chers jeunes yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko l'info yéenekaay mi dee si waat ci xëccoo gu metti gi nekk ci diggante ñaari entreprise française yi di Méridien ak SNCF lépp ñeel suñu contrôle terre bi yéenekaay bi ne ko xamul Méridien ñoom la jox suñu BRT bi ñu liggéey ci liggéey bu rëy dugal ci lu tollook 135 milliards loolu diiru bi mu ngi toll ci ans yoo xamante ne nguurug Sénégal ndax fi mu toll nii jàpp nañ ne résultat yi ma amagum ak li mu proposé ak yi mu am jamono ji ak autorité yi boo moytul mooy mujjee gàddu contrôle terre bi ak suñu BRT bi gën a am nag doole fii ci Sénégal Le Témoin yéen i kaay ubbi xët bu yaatu dellusiwaat ci face à bi nga xamante ni Ousmane Sonko ak Adji Sarr ko amal ñi ki démb ci kanamu doyen des juges yéen bi na coow doo nga fa bari woon de waaye liggéey ba nañu ko doon séentoo ndax bu fekkee ne confrontation lañ doon xaar moo xam Ousmane Sonko moo xam Adji Sarr kenn ku ci nekk da i kaay orchestré dañu ko orchestré weesuwul na nguurug Macky Sall gii Adji Sarr na man de damaa am gàcca confrontation laa doon xaar Ousmane Sonko ne tekk tekkaaral na du tontu question yi Maître El Hadji yokk ci xar mi keroog tey xam le ne lan moo tax Ousmane Sonko ji boppam ne du tontu suñuy question comme que nag dafa faussé confrontation bi lii moo tax fi mu nii dañu nangoo joxe suñuy preuve l'observateur ubbi ci xët bu yaatu del ci face à bii tey xam le ne amul lenn dara tus ci loo xamante ne teg nañ moo xam Ousmane Sonko moo ñoom ñëpp dañu ne tekk ne duñu tontu question yéenekaay bi ne ki bett ñëpp kay mooy Adji Sarr mi nga xam ne jàppoon nañu ne buy ñëw di toj kaas ci kanamu juge bi waaye li mu xam le ni ki démb mooy Ousmane Sonko dafa ragal tegoon naa ne dina am courage u attaqué ma ba tey ji def na tekk tekkaaral tontuwul benn question yéenekaay bi dafa taxaw seetlu ci comportement Adji ni mu demee démb ca tribunal ba mën na la robe bu rouge la maye am lu bëri lum ci laxas na teg ci am confiance ci boppam ba mu ëpp boole ci nag di provoquer di buruxlu ay wax lépp ngir mën a jot Ousmane Sonko mii ni ki démb yéenekaay bi dala Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse bi ne gis nga lii Ousmane Sonko di wax ne complot la su dee am na benn comploteur Ousmane Sonko lay wuyoo li ko war nag moo di mu topp yoon ngir deram bi mën a seet Les Échos yéene kaay ne démb kay comme si marathon budgétaire amul dañu gis kay moo di confrontation marathon ca biir bureau doyen des juges waaye la mën a tënk ci jàkkaarloo bii Adji Sarr Ousmane Sonko doon jàkkaarloo weesuwul la xewoon maanaam Adji taxaw ci position di accuser Ousmane Sonko mi Sonko lu fa xew démb waaye nit ki démb ci ay 22 heures le président Ousmane Sonko daal def déclaration leeral confrontation ni ak dil ne confrontation amu ma jàkkaarloo du Ousmane Sonko ma ma xamoon Vox Populi di ko dëggal na Adji Sarr kay dafa mujjee jommi jommeet ni ki démb jàkkaarloo mag Ousmane Sonko bii nee na xàmmeetul Ousmane Sonko li mu yaakaaroon ci moom ne dina ñëw confronté ma dafa mujjee dévier voix boobu ba léegi si tontul benn question boo xamante ni sama avocat yi posé nañ ko ko Ousmane Sonko moom jàppee yëf yabaate ndax mënul nangu nit accusé la ba noppi noppi ne du indi ay preuve yéenekaay bi dalal seeni avocat maître El Hadji avocat wa Adji bii di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ñun daal duñu joxe suñuy preuve feeg Ousmane Sonko mi mu ngi fatt ay noppam ne duñu tontu suñuy question duñu teg ci table bi preuve xanaa procès am te ku yaakaar ne audition bii dinañ ko tasaare ci biir réseaux sociaux yi yaa ngi nax sa waaye bu dee ñun dong dara doo leen ko jot suñuy preuve nag ñun ñoo ko moom te ñoo ngi

bi benn laa la wax benn benn ci question yi tontuwu ko maître Ousseynou Ngom ne noo lii rek lii dong la xaar ci Maham Diallo lu mu def leneen lu dul lii nag day nuroog far waaye la tribune yéen ne patt wa bi ne Adji fa mu tegoon baaraamam fa la ko teg ba léegi si insister persister ne Ousmane Sonko mii moo ko violé donte njiitu Pastef nag weddi lépp jàppee mbir yi complot yéen kaay bi dellusiwaat ci démb lan ma waroon coow lu rëy am ci biir

bëggut ndax su bëggoon génn ci cool yi suñuy dana ko tontu non seulement tontuwul suñuy question waaye question procureur sax tontuwu ko moom njiitu Pastef maître Ousseynou Ngom di xam ci biir yéenekaay bi duñu tontu de ma ne suñu client laa la wax du leen tontu parce que wóolawu leen bu fekkee na kës néew sax indi ay preuve teg ko ci taabal bi sax mu tane en tout cas la moom def na ci révélation yu rëy tañuy xamal ni Adji moom jarul ngay poser question ndaxte koo xamante ni coow lii ñuy réglé yow nekkoon na dèjà ci sa ndodd bañ condamné la fële ca France du yow laay tontu say question demal nga toogi fële njiitu Pastef di sàkku ci audition wu Mamour Diallo maître Mamadou Sow ak ñeneen ñoo xamante ni ñoo ngi leen tudd ci bii nañ leen auditionné ci na mu gën a gaawee Ousmane Sonko jàppee procureur bii membre du complot maître Abdou Dialy kan di xam ne ci biir yéenekaay bi ne démb daal yëfi yabaate dong nag moo am ci kanamu i dana gën a diisal leerul maître dem na sax bay xamal Adji mii ne ko déggoon nañ ne yor nga ay preuve ci ay vidéo mën na élément de preuve yooyu fan la nekk Adji ne du ci tontu du mooyu la def laa la wax maître Bamba ci xamal ko ne ko du ma tontu say question ndaxte yow membre Pastef nga maître Ousseynou Ngom moom dafa mujjee xas Adji ne ko sa ëmb bii mook ëmbug ñaayeyam ndax ëmb bu ëpp ñaar fukki weer moom ci yow dong lañ ko mës gisee ci Sénégal pénitentiaire bii li moo tax jamono ji ñu ci garde à vue source a moom dellusiwaat ca coow ak Amy Ndiaye Gniby bii sa assemblée nationale yéenekaay bi ne en tout waa parti pur yi déposé nañ ay plainte waaye maître Boubacar Cissé de avocat wu Amy Ndiaye Gniby nag am na lu muy dutee ay alerté nag ne bépp médecin boo xamante def nga certificat médical dinañ la poursuivre ci yoon ndax weesuwul faute professionnelle dem sax ba jéggi loolu nekk faute pénale te yaa ngi xeex ak justice te dina am nag ay sanction kon nag nañu jàpp ne ñoom ñaari député yi ak képp ku leen mënti protégé dinañ leen toppee ay malfaiteur moom avocat bi di xam ne ci biir yéenekaay bi ne fi toll nii nag li war moo di ñaari député yi daal génn jàkkaarloog yoon bu dee suñu cliente moom di Amy Ndiaye Gniby fi toll nii yaramam baa ngi commencé feex actuellement sax mu ngi ci maternité hôpital Le Dantec grand place na en tout cas coowal Amy na fi mu toll nii ca